jataayu mag ñi jataayu mag ñi di seen émission bu am solo bi nga xamante ni moom la ñu def di ko waajale li nga xamante ni mooy bisu màggalu seexi sëriñ Tuubaa yi loolu yi nag moo waral ay bis bu si nekk ñu daal di tànn benn mag ci mag ñi nga xamante ni ñoo toppoon sëriñ Tuubaa ngir waxtaane ko ay jaar-jaaram ak ay jëfam yi nga xamante ni moom la doon jëfal ku baax kii di ba Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul tey nag ñi ngi leen indiloon sëriñ Abdou Karim Touré di menn mag moo xamante ni ku ne xam na ko ku ne ràññee na ko ci keppaaru Seex Ahmadou Bamba Xaadim Rasuul moom lañ leen doon xamal tey ànd ci ak sëriñ Omar Touré ki ko doon waaye nag jataayu am solo yi sëriñ Maam Mor Touré borom Touba jërëjëf moo koy baaxoo di amal. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñu ngi tàmbalee sunu liggéey ci Cheikh Mamadou Mountakha barke Cheikh Mamadou Mountakha barke Cheikh Mamadou Mountakha barke yoonu murid yëpp kon ñu fas yéene waxtaan ak kenn ci mag ñi eh, muy Cheikh Abdou Karim Touré fas yéene nañoo wax nag eh, fi mu gënee àdduna fa séenee wax ay waajuram ak ak njàng am njàngam ak fi mu ci sëriñ bi ak ak tarbiyaam eh, fa séenee wax tamit di ko sëriñ bi yeewee ñu njëkk ànd ak moom ak dëkk yim jaar man fa liggéey sëriñ Touba ak ay nettali ci sëriñ Touba ak relation bi mu amoon ak mag ñi ko defee ñu wax kañ la fi bàyyi ko ak ay xalifaam ak lenn ci ay jukkoom ak lenn ci xasida yam def ak lenn ci ay jagleem waaye loolu yëpp nag dañ koy def rek ci tënk kon du Abdou dem Touré fan la ganee àdduna muy ganee àdduna Màkka Touré 1871 Màkka Touré ah, boo demee ba kokki diggante ma kokki juróom-benn kilomètre la waaw mu ganee àdduna nag ki waajur yu baax ay maamam tamit baax lool di ay wàll yu kaamil ndax sëriñ Tuubaa moo ko xamal ne samaam am na fukki doom ak ñeent kenn moo ci dul wàll yu baaxam wecc na wilaaya am kon màkkatul la gane àdduna sëñ Abdou Karim tag Mahamadul Muxtaar eh, mooy waajuram mut fa mbomme ngay maram xaaj mut fa làmman alañ ma demel ma demel fan ma jeey madame Fatma Dieye bu dee ci wàllu waajurum bu jigéen sëñ Abdou Karim Maram Der Absa Ndiaye Aminta Jëm Sayet Soxna Busa maam Haram Mbacke kon maam maam Haram Mbacke kon maam Sayet Soxna Busa moomu ak Ahmadou Soxna Busa muy maami Serigne Touba ñoo bokk lépp kon mook Serigne Touba ñoo bokk menn maam kon loolu la tënk ci wàllu euh, bokk gi. léegi kon moom euh, sëñ Abdou Karim Touré euh, fan la tërëbee woo waaw am njà am njàngam tamit dinañ ci dikk am njàngam waajuram moo ko jàngal muy maam Guña ture moo bàyyam bokk moo ko jàngal waaye ñii nee nañ histoire da daa baaxoo wuute ñii nee nañ jàng na ba wàcc ñii ne jàng na ba tollu yaasin Euh, ginnaaw bi loolu amee nag la jóge foofu ci makk dem fekk sëriñ bi Mbàkke Bari dem jéblu ci moom euh, loolu la wax kon bàyyam boobu di maam gu ñu turee bokk na de bàyyam de ak bàyyi moo ko tàmbalil alliwoom jàngal ko ba ba yeesin ñii ne jàng na ba wàcc waaye ginnaaw bi xel mi nekk sëriñ Tuubaa mu dem fekk Mbàkke Bari Jolof fekk boo sëñ baa ngi waaj dem ci tukki bi ci la jébloo ci moom euh, ak tarbiyaam nag Tuubaa ginnaaw bi sëriñ bi demee ci tukki ba ñëw ba mu yeesalaat ak jaayanteem ci sonn si tàggoot ak sëriñ benn yoon ba ñu ñëwee Touba Daaru Manaan ba nañ demee gànnaar ba nañ demee Jolof ba nañ demee Njaareem waaw kon waxoon naa ci njàng mi muy maam guña xaritaal moo ko daral bokk ak bàyyam ndey ak bàyyi ca Màkka Touré waaye Abdul xelam nekk ci sëriñ tubaa mu bàyyi njàng ma fekk sëriñ bi Mbàkke bari jox ko boppam sëriñ Touba nangul ko sëriñ bi laaj na ko niñ demee ci bokk sax mu leeral ko ko sëriñ bi xamal na li nekk ak bokk jëlew fi day jaay euh, bokk yi sax ñëwoon nañ ci di ko jël si sëriñ bi sëriñ bi ne ko Abdou suturaal leen mu ànd ak ñoom dem waaye ba mu demee tamit sëñ Tuubaa ku ko mos doo ko mën a bàyyi waaye ñu daal di koy topp si bi mu mu ñëwee mu daal di dawaat dem ci sëriñ Tuubaa ñu topp si waat ko bi ñëwee sëñ bi neen lu tax ngeen ko yóbbu ñu ne ko day doomi soxna daa war a jàng ne ko daara ja juróom-ñaar fukk nga fa ñuy xamlu ca Màkka Touré te ma war a doon seen kilifa ah, sëñ Tuubaa ne bu fekkee lool rekk tax ngeen bëgg ko yóbbu ba leen ko fi ndax ànd ak man du tee xam la nga war a xam man sëñ Tuubaa ànd ak man du tee am la nga war a am kon ci loolu lañ leeral njàngam ñu ñëw nag ci jébaloom ak jébaloom ci sëriñ bi mi ngi jébalu ci sëriñ bi dëkk bu ñuy wax Mbàkke Bari doon waxambaane mu ndaw sëriñ bi nangul ko bi sëriñ bi di dem mu boole kook maam Thierno. bi serigne bi demé ba delu ci ba ñëw Sanusi ci la yassalat ak gayam tem ci serigne bi waaw sëriñ bi xamal nako al kharxu hada la yujudu ila batarki ada kharxu hada xarxu mu ne su ko am ci lulut dul ada aada mu ne ca daara ji di liggéeyal sëriñ bi ak njàmbaaram nak serigne Tuubaa ko sédal ndax wax na ne am bis mu ne ca tool ya am bi serigne bi yónni ku ñu wax Mor Fall Batour mu fekk ko ci tol ya jox ko warga ak sukkar ak kaas ak mukhras mu ko serigne serigne bi mu ñew ne ko bi mo yoni dama ma yetal ma ko ji Abdul Karim kon am jambar ak jambarem ci liggéey serigne bi serigne bi mako ko seedeel tu neena serigne bi daan wax fu jambar yam man na ne ci kanamam serigne Tuubaa daan wax fu jambar ne man na yam man serigne Tuubaa man na ma nek ci kanamam waye serigne Abdul Karim rom na ko sama laxasaay mu man ma Abdou wàññil ëpp na mu ne ci daara ji ba serigne bi di dem gànnaar mu am ndigal and ak mom Euh, dinañ joxe firnde nag ci gànn dem gi gànnaar nag dinañ joxe firnde ci euh, xam ne ne bokk na ci mag ñi nekkoon gànnaar la ci fee firnde ba ñu nee gànnaar sëriñ bi na ko bu ngeen gisee duma leen noppal ba ëllëgee dama bëgg ngeen bokk ci ñuy dimbale yonent bi sallallahu alayhi caram mu ba ne itam foofee ca gànnaar am na ndaw lu jébbaloon ci sëriñ bi yàlla dogal mu nelaw sëriñ bi ne leen bàmmeeli sëriñ fi nekk ñoo ma koy laaj ngir barkeeloo ko denc leen ko ñëw mu wax leen lëf ci kii nga xam ne biñ demee bi denc ko ba ñëw sëñ bi kii nga xam ne daf maa joxoon boppam façon mu yéene liggéeyal saa xamal ne man dana jéggal ci wàllu mbaayam juróom-ñaar fukk jéggal ci wàllu ndeyam juróom fukk nga xam ne kooku dafa jébaloon sëñ bi waaye jotte liggéey loolu gànnaar la xewoon sëñ Abdou Karim fekk na ko moog sëriñ Madiba Sylla tamit ñoo daan ñoo bokkoon benn néeg bu ñu nekk sëriñ Madiba Sylla ñoo daan battalante ay yóbbante tamit ku ci daan ñëw senegal bàyyi sama morom foofa sëñ euh, euh, bu tamit nee na ba ñu jógee gànnaar ñëw ci yéen mu doy waar lool lekk amu fa waaye sëriñ bi moo leen téye woon ci baatin bu ñu daa yendoo liggéey ba ngoon natt ko dugloo bi ba mu mëkk saaf ko juróom-ñetti ponk ko bu ñu ko mosatee la ne sëriñ bi daa leen wax xiif leen rek bu rek jotee di ngeen loolu gànnaar leen ko di ba tey bis ñaar fukki juróom ñett ci weeru saxbaan lii nag ceen li woon bi ñëwee ceen sëriñ ma sàmba di ba sëriñ bi ba yàgg mu ne fu may gisee ku baax mool ma sa jaat si si Abdou Karim nee maa ngi toog ma samp sama xel sëriñ Masamba ne ko Abdou Karim li nga wax ma ko tax a jóg sëriñ bi ne ko dawal wool ma ko nee na bi mu may jot maa ngi bëgg génn dëkk bi bi ma sëriñ Masamba di jot maa ngi bëgg génn dëkk bi mu ne ma ñëwal wuyu sëriñ bi ma ñëw ne ma foo jëm ma ne ko xanaa seeti sajaat jaat mu ne ko xam nga fa mu ne mu ne ko déedéet xanaa teg sama një ba gis ko mane ma nga ca gàddi naar yi ya ca kër basin nee na ma daal di jóg sëriñ Massa ne ma Abdou boo génnee loo njëkk a jot war ko ba ma génnee ba ci gaw yi mujj ci gawe ceen yi ma yem ci fas fu weex ñu jàttan ko ma dindi jàttan ko ba war ne kër basin maa ngoog ne bu ma ñëwee ma laaj te sa jaat ñu ne ma ma nga ca gàdd ma nga ca gàdd ya ma laaj yoonu gàdd ya ñu tegtal ma bi ma yegsee ma taxaw ndekk ci kaw xaymaam laa taxaw ma ne asalaamaaleykum ñu ne wax aleykum salaam mu ne ayikum sa jaat ñu ne ana ma wàcc ma wàcc nuyoog moom koo jóge mu ne ko ci sëñ Bàmba moo ma yónni maam sëñ Abdou Karim ne ko sëñ baam am yónni sa jaan ne ko lu mu wax nee na nga fanaan si téye ndax bu ñu seenee weer yaawra naa fi la mu ne dama mën a dem tey sëñ Abdou ne ko dama mën a dem tey kon de da nga dégg ñu ne kon da nga dégg ñu ne rey nañu Abdou Karim Kër Basin wala Abdou Karim rey na sa jaat ne mu xam ne caaxaan ma mu door a takk ay bagaasam moo war ne ma waral ñu dem mu ne ko jox ma genn fas rek tan dem nee eh, na dellu seenu ci fekk sëriñ bi ak sëriñ Masamba fa ñu leen bàyyi woon sajaat sajaat moo jur jawaat ma daa jiite jareem ndax sëñ Abdou Karim dana sëñ Tuubaa wax rek lu am ba noppi la moo tax bi mu waxee rek mu samp sama xel sama ngir seetle ci yéen rek ne tamit lii ci yéen la xew woon ne ci yéen dañoo defaraat kër gi bay door a noppi ba mel ne duutuñu tuxu bi suñu tëdd ba gudd ñu dégg sëriñ bi naa xayrun lakum xayrun lakum ne ñu daje ñun dongo yi mu ne yéen ñi ma mënta tàggool ak téré yi ma mënta tagul fablé lu ngeen ci atal sa borom jox na ma digal ma gën dëkk bi nee ma jublu ñu xam ma ngi dag yi bi néna muy dem néna kérok keroog sëñ Abdou lewna moko lew dab ak fas né yoon wa sëriñ Mor Soxna Jóob mo ci gënoon doon tuut tank moy bay batul Jóob waaw ku ñu wax batul Jóob néna yoon wa biñu joggé ci yeen di ñoo jaarim sëñ Abdou né ne fukk lañu won yoon wa sëñ Mor Soxna Jóob mo ci doon tuut tank sëñ Mor Soxna Jóob nak moy bay batul Jóob bateau jooju defoon na ministère ci nguuru Abdou Diouf ba tey nee na Karim nee na ba tey ba ñu jógee gànnaar ak jolof nag ñëw njaareem nee na bis da leen woon ne leen fii du gànnaar gañu ne woon du jolof ga ne woon ak yéen fii réewum tubaab la bu leen jaxasoog tubaab yu mukk bu ngeen ko defee da ngeen di kuucuuj sëñ bi ne leen bu ngeen ko defee da ngeen di kuucuuj xam ngeen kuucuuj ñu ne ko déedéet mbàkk nee na sëñ bi ne mooy gunóor yooyu bënn der yi man nag damaa mel ne Sëñ Tuubaa nee na man nag damaa mel ne der woo xam ne dañu ko wulli foog ko tëj ko ñàpp ko dara dara mënatuma dara moo nee na bu kenn dem tëj ba téyewul ma ci téyewul ma la ci mais nag ñu leen waxee ay fan ne am bis nee sëñ bi nee mooñu sëñ bi këram nee mooñu ne leen yéen dara mënatu a yàq yéen a mel ne bërigo boobu nga xam ne dañoo dindi ndox ma fa nekkoon sakk bunt ba daaneel ko ci géej nee day tëmb rek waaye du tëj noonu ngeen mel dara mënatu leen a wàññi dara loolu njaareem bi ñu doog a ñëw njaareem fee leen ko sëñ waxoon sëñ bi keneen nee na nee bis ci njaarim dama tëdd bu guddi mel na aal dama dikkal ma jóg topp mbedd njaareem mi ngi lëndëm këriis bi ma jubee armeel xam naa sëriñ bi dafa xam ne bu gawul ci man danaa joom nee mu ne cëpp ci sama kanam ne ana kii mu ne ko mën a Abdou Karim loo wut fii xam xaw ma ci saa bopp dara mais sëriñ bi ñëwal toppal sama ginnaaw ba ci kër gi mag bi ma topp ci ginnaaw ba ci kër gi mag ngi dugg kees mu ne kees gu ñu dugg ba génn jàll ci geneen nee na ñu dem ba ci genn kees goo xam ne mu ne kees gi na ko sàkket ba mu def benn bunt diggam ak kees gi na nga fi bàyyi yoon woo xam ne danaa ci mën a jaar di jàngal alxuraan ba kenn du ma gis fàggu ci sëñ bi ne ko fàggu ci ngelawal nawet bii di ñëw nee na ma ne ko dinaa ci fàggu ngelawal nawet bi te wàlla fàggu sëñ sëñ sëñ Tuubaa ne ko fàggu ci sutura sa adduna ak àllaaxira fàggu ci sutura sa adduna ak àllaaxira ba ci fàggul naa la nee yàlla dogal boobu amaguma ay taalibe sëñ bi seexalu ma ne tekk ak sama jaaxle ba ci yàgg ma ne yudriku bil xiili ma laa yudriku bil xuwa ma dem ci Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiaye fekk ku la woon maladie maladie faj bi mu ne kooku mu ne ko mën na Abdou Karim ma na mu ne ko waaw xanaa da am ndigal am ndigal mu ne ko waaw daa ne ko xar xat bu doy ak xeer yu doy xànc gu doy murid doy laa soxla Cheikh Ibrahima Sarr ne ko lépp am na fi jamono yi yëpp kere ci àll bi du waaye bu Sëriñ Tuubaa soxlaa kenn waratu te soxla moo ma ci gën a yey daana ko fabal lépp yóbbu mu jógee ci dem ci sëriñ ma nee na li may guddi guddi xële maam gaa ngay daw nee na mu jaar man foofu ma jóge fa dem ci Seex Mansuur Jaw mu jaar ak moom foofu nee na ma ànd ak ñoom ba ñu demee ba ci kër gu mag gi ma ne leen nañu ko def juróom-ñetti laaj yam ak juróom-ñetti bunt bunt àjjana nee na ma ànd ak ñoom ñu liggéey ko ba mu yegg lay ko ba lay ko ba mu ne ba dex ma yeewi leen am ngeen jaajëf daan na daw leen ndax yi bi nanguloo gis nit guddi rawat na ko rawat na ku mu xamul nee na mu daal yeewi dong yooyu mu àndaloon liggéey bi moom mu des fa nee noo dugg jib rek mu dégg baatu sëriñ biir yi muy jàng alxuraan di ñëw ba mu yegsee fu mu fëgg rek mën a dung dung nag sëñ Tuubaa fëgg rek ci sàkk li mu ko doon liggéey mën a dung dung ndax booba sàkk taxew nee na sëñ Tuubaa ne ko waaw loolu ci liggéey boobu ci njaarim la woon boobu amagut booba sëñ bi seexalut ko njaarim la woon beneen tamit mooy wax na xam naa sëñ bi tamit xam naa sëriñ bi daa xam ne kees ga moom doon liggéeyloo jàppale nañ ma ci moo ma ne ma na nga ma liggéeyal ab néeg bu la ci kenn jàppale mais sëñ bi tamit ma saa bopp li war dem ci néeg lépp ba ma demee nag ba teg bu des xaw ma nu may tegam néeg man rek may dem ci sëriñ ma sàmbal ne ko sëriñ bi dama doon liggéeyloo ab néeg dana ma ci kenn jàppale léegi teg nag moo ci des sëriñ ma sàmb ne ko nañu dem loolu bëgg ma ànd ak moom sëriñ ba ñu demee ba jub sëriñ bi sëriñ ma sàmb ne groupe sukk biraam sëñ Abdou Karim ne maraam topp ci moom maraam topp ci moom ñu ngi nuyoo ñu ngi agsi sëñ Moussa nuyoo ak sëriñ bi ne ko Abdou nekk ba nga ko doon liggéeyloo yegg yegg yegg na waaye teg rek moo ci des sëriñ sëriñ bi ne ko loolu bokku ci sëñ Moussa mu ne ko waaye teg rek moo ci des sëriñ bi ne ko loolu bokku ci daa ne ko àndal si àndal ak Moussa Mbokk mu ja mu jàppale la boo demee mu teg la la ko ngeen teg ko sëriñ bi ne ko sëriñ bi ne sëñ Abdou Karim sàkkatal ma wetu soow gi ak penku bàyyi wetug Saalum ma gànnaar daana ko wutal ab lal teg fa wetug soowu ko nee ma def ko sëriñ bi fab ay téere teg fa bopp lal bi ak tànk yi maanaam lal bi ak tànk yi sëriñ bi fab ay téere teg fa teg ba mu fees ne digg ba sëriñ bi di ci toog maanaam digg digg digg lal ba sëriñ bi di ci toog sëriñ bi kërim nee ren ba diwoon ku mu gis ci néeg boobu ku mu giseel ci sama néeg boobee la gisee ci néeg boobee la la sëriñ bi gisee ren ba di diwoon ci beneen tamit ne sëriñ bi daa daana wax ne jenn jëf ju ñu nangu sëriñ bi wax ne jenn jëf ju ñu nangu doy na te woo na ma ba ma ñëw mu ne ma xam du santal yàlla mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne ma loo ma sa jëf yàlla nangu na ko sunu borom mos nee na sa jenn jëf neen tamit ci beneen yoon Cheikh Abdou wax na ne bu sëriñ Tuubaa dee si woon jamono tamit xamul lu ma lu yees lu ma koy defal loo xam ne fekk na deful ma ko koon kon loolu xew na ci diggante dëkk yooyu nga xam ne sëñ jaar na fee sëriñ Tuubaa muy diggante tuuba ak Gànnaar ak Feyeen Jolof ak Njaaréem kon nag dañuy dikk ci leeral nag bi nga xam ne sëriñ bi mu ko koy yeewi bu ko sëriñ bi di yeewi moom sëriñ bi yeewi na ko ñaari yoon bu njëkk bi daf ko yeewi fekk ay këram dafa tàmm liggéey sëriñ Touba bu mën a koo bàyyi mu rocc ko delluwaat ci daara ji xam naa sëriñ bi sunu borom daf ko wax xamal ne ci baatin mu yónni mu xamal ne si baatin si ëpp tey des na ji mu yónnee woo la ko ne ko saa borom mu yónni ma di rek sëñ Tuubaa saa borom daa dem xam bis bis nag sëriñ bi daa woote mu ko am benn bis nag ci njaareem sëriñ bi woote ba ñëpp teew moo woo sëñ Abdou Karim nee na ma ma bokk ci ñooy féete ginnaaw ñu mujjee ñëw sëriñ bi ne ana Abdou Karim nee na ma rusa jégat Cheikh Moustapha Karim ne ma Abdou wuyul sëriñ bi ne ma jégat ba teg saa bopp ci fenêtre bi ci fenêtre xam sëriñ bi ci fenêtre la daan gisee nit ñi sëriñ bi ne waaw kay daane ko li fiy ñëw ba moom penku ak sowu mënoon naa la cee yaatal ba mel ne yaa ko moom waaye dama laa defal lu gën loolu sëñ Tuubaa wax ko loolu ne ko ñooñu ñuy waxee seex ñooñi ñuy waxe seex ci laa la boole mu ne ko yaari bool sëñ bi ne ko yaari bool ya nga ma daan toggal toggal nga ma ko mu ne ko waaw fekk boobu daan toggal sëñ bi bool mu ne ko jox joxal ma benn bi Cheikh Moustapha Karim bi ci des joxal ma ko Cheikh Mahamadul Fadli eh, bi sëñ bi waxee loolu ba noppi rek daa di daa di daa yaari bool yooyu benn bi maam Youssou jaw moo ko yóbbu moo ko yóbbu moo ko yóbbul moo ko moo ko yóbbu ba ca des maam Aliou Paan bu moo ko yóbbu ñaari magi taalibe yooyu man mi wax ak yéen fekk naa fekk naa leen fi ne bis sëriñ bi woo ko ne ko am nga néeg sëñ Tuubaa bi mu ko yeewee ba seexal ko nag ne ko am nga néeg mu ne ko déedéet am nga mbaar mu ne ko waaw mu ne ko demal jaaxante nee na ba mu demee jaaxante nag ci la taalibe yi tàmbalee ñëw di jébbalu ci moom nee nag bi ko sëñ bi seexalee nag ca njaarim ab diir sëriñ boo ko yabal ko Mbàkke Ture gamu mu bawoo woon maanaam ba muy dem ba muy jébbalu sëñ Tuubaa fam bawoo woon dem sëñ Touba muy dëkk cosaanam sëñ bi nag yebalaat waat yebalaat ko fa daa ne wax nañu ne maam Modou Aminta moom la ko sëriñ bi booleeloon loon mu doon santam ba muy dem Màkka ku ñu wax Modou Aminta nga xam ne moo ko sëñ Abdou Karim ay doom bàyyi leen moom ko sëñ boolee loon ne ko kaay santal ma Abdou Karim mu dellu ca bokk ba muy dem ca bokk nag la ñu gënoon a yàkkamti ci moom mooy xool alliwoom ndax ba mu fay jógee alliwo ji soriwut ñu jàpp ne xañ na am njàngam soriwut ñu dégg ne mi ngi ñëw nag ñu di ko xaar ci loolu nee na ñu dajale màkk ñu dajale ñu dajale màkk magi màkk yëpp nag ci pénc ma bi sëñ bi kërim ñëwee nag ñu ne dañu xool mu njàngam ba xam ndax boobu looloo xew nee na sëñ bi kërim nee na risaala lañ lañ ko njëkk a nee na mu mel ne fatiha ci moom ñu andi maqaamaatul xarit mu mel ne fatiha ci moom nee na sëñ bi kërim nee na bu ñu ma andil mu mel na fatiha ci man eh, loolu bi mu amee nag nga xam ne loolu lépp sëñ Tuubaa nee na koo sol bi mu nee ci liggéey bi loolu nag bi mu amee Eh, ci la ñooñu ñëpp jéblu ci moom mbokk mbokki turéturab yooyu li ñuy jéblu nee na ci lañuy ñu ci man ñam ña nga xam ne ay mag lañ moom mag yi juróom ñett fukki at ak juróom-ñeent ña magal boole ko seen doom waaye ñoo ci des nga xam ne magale wuñ noonu ñëpp nag daal di jéblu ci moom daa daal leen wax ne te tamit leen wax ne bu Serigne Touba noppee ci man moom Serigne Abdou Karim daana leen bi mu ne ci daal ji daana leen leen ab bu ndaw du ma leen laaj masala ne ak laxasaayam nag ci daara ja fukki at la ak ñett ak genn wàll yoo xam ne mustiyee tàggu njàpp mustiyee faat waxtu liggéeyal na sëñ Tuubaa ci tërbiya takk der fukki at ak ñett yoo xam ne ak genn wàll yoo xam ne mustiyee tàggu mustiyee faat mustiyee tàggu ko njàpp mustiyee faat waxtu kon bi ko sëñ Tuubaa si xale ñii ñoo njëkk a ànd ak moom maanaam ñii a moom ci magi taalibe bu ñu wax maam Mor Mariama maam Aliou Paan bu maam Modou Kan maam Daam Xari maam Góora Ndiaye maam Moussa Sarr maam Galaye Gueye maam Yàgg Fall Ndar la dëkkoon maam Souleymane Diop maam Youssou Diaw maam Mor Khary maam Boubacar maam Abbas Touré maam Modou Sanu maam mooy jarbaatu Ilimaan maam Mbaye Seye maam Ibrahima Ka maam Cheikh Ndiaye séeréer kon ñooñu laañ laaj moom tamit eh, xam nga ne so mooy soppi laxasaay ci la nag dem tàmbalee jublu nag ci dëkk yi nga xam ne ci la fi la doon sànc yi liggéeyal Sëñ Tuubaa dëkk yooya bokk na ci dëkk yi mu jaar dafa liggéeyal Sëñ Tuubaa ànd ak njabootam ak taalibe yi bokk na ci dëkk bu ñuy wax baako Njéeme ak dëkk fu ñuy wax fu ñuy wax Taneeful ak fu ñuy wax Korcil ak fu ñu wax Busra ak fu ñu wax Kelewtew ak fu ñuy wax Coon dëkk yi yëpp fu ci ne jaar na fa doon liggéey Sëñ Tuubaa ak fu ñu wax daaree buleel daaree buleel nag fa la mujj foofu nag sëñ Bassirou ko fa yóbboon fa la jógee nag ñibbisi Tuubaa gi ñibbisi fii ci bi Minam dëkk bi ma njëkk lim nag muy Baako Ndiobé nga xam ne bi ko Sëñ Tuubaa yooyu fi la njëkk a sanc ginnaaw bi nag sëñ bi da ko wane ko Abdou eh, dellu si ndax dëkk foofu dafa lëndëm Baako Ndiobé mu ne ko foofu daal lëndëm tundoo daal lëndëm ginnaaw boobu nag fa la jógee doo a dem man bi ñëwee ca doog a sanc dëkk ñu wax taneeful bu ko defee dañuy nettali tamit ci lenn ci kàddu yi nga xam ne daana ko nangoo ci làmmiñ sëriñ bi ndax danaan jataayu sëriñ bi lu bari sëriñ bi di ko nettali moom ku bari lu mu daa jataayu sëriñ bi la bis woon na ko toogal ma wax la li ma taxoon a dem ci géej gi nee na ba may toog dégg mu dégg coow lu bari moom sëriñ bi Karim sëriñ bi ne ko seetal kii soow nee na mu dikk ne ko Ibrahima Fall fàlla mu ne ko ubbil ko mu dugg waaye moom rek Ibrahima Fall dama doon bëgg a nettali Abdul Karim la ma taxoon a dem ci géej gi nee na ma sukk ne ah Mbàkke loolu ku nekk war a fekk mu ne leen sama isaa bi àddina ak àllaaxira maak sama ñooñ loolu leen suñ sama isaa bi àddina ak sama ñooñ moo ma taxoon a dem ci géej gi sunu borom ne ma loolu bala nga ko mën a am da nga may liggéeyal te liggéey bi balaa sotti da ngay jaxasoog na balaa sotti da ngay jaxasoog nasaraan nasaraan bi mooy tubaab bi te sëñ tubaab nee na bañ naa nasaraan ba xaw ma nu may jaxasoog moom nee na iblis daal defuk njabar sol ci xol yi ñu bañ ma te def ma leen dara defaat geneen jabar xool ci sol ci yi ceddo yi ak sëriñ si ñu bañ ma te def ma leen dara nee na mujj sama jiba ji fees dell ki bataaxeelu tuuma mu xam ne nee na sëñ Tuubaa nee ma xam ne natt bi du mën a ñàkk sunu borom rocc yër ma yër ma ja ca xoli nasaraan yi jox ma ma yóbbale rocc gëm yàlla ga sëriñ si yoroon jox ma ma yóbbale sëñ bi ne ma daal di ñag Tuubaa ba mu ñagu dem Mbàkke Bari waaji fa dem Mbàkke Bari waaji fa nee na mu ne sëñ Tuubaa ne sëñ Abdou Karim sëñ Jaay mu saxir bind ma bataaxel bataaxel bataaxel bi ku ñuy wax Ablaye Seen nga xam ne sëriñ bi moo ko tërbiya wàcce ko boole ko ak maam Cheikh Mbaye moom la ko yónni nee nee na maam Cheikh Mbaye bind ci ne inna faransa jamaxoo joyo soom inna faransa jamaxoo joyo soom fakkun xalaa xasarin nee na sëñ Tuubaa na ma teggee nan moom bind ci ginnaaw bataaxel ba ne ko fa jasaakallaahu rabbul aalamiina ahsanal jasaa fii daarayni <coughs> sëñ Tuubaa ne fekk jekk na ma takk mbàkk ba di taseeg ñi jël si jeewal mu ne Abdou Karim keroog ba ma yegg see jeewal ahlu jundu sama wàcc na ahlu jundul ardi wàcc na Cheikh Abdou Karim jundu jundul ardi defe naa mooy ña teewoon Badar ahlu jundu sama nag sàkku naak leeralam mu ne ko Jibril Mikaayil Israfil Hasrail a ñetti junniy malaaka ya ñu àndaloon eh, sëñ Tuubaa ne ko ci gàttal ku wàllu ku wàllu woon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Badar rek ku wàllu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Badar rek ñëwoon na jeewal sunu borom ne yéen waa ma ahlu ma du mi daf may bëgg ma a ma du mi daf may bëgg a liggéeyal te ma bëgg ngeen taxaw ko ba liggéey bi yegg waa ahlu badar daal di jaayanteeg moom sunu borom sunu jaayanteeg waa ahlu badar jaayanteeg sunu borom ci ne ahmadu mii moo nu gënal sunu bopp daana ko taxaw ba ab liggéeyam mat iblis boo fële ne kii saa rekk ma ci doy moo ma ci doy sëriñ bi ne ko manit ki la bind te nga jàmb ko moo ma doy ci yow waa ahlu badar ne ko génnal ci ahmadu mi doo ko mënal dara ndax ñoo la dàqoon ci badar danga nga soppi koon yéefar bu rëy di xeexloo yéefar yi ba nga seen ba nga seen ñuy wàcc nga yat yati nga yat yati moo waral naka sax laa bay naka sax laa bay alxuraan la daan ne na leen inni aaree maa laa taraw na inni axaafullah rabb inni axaafullah rabbul alamin nee na di dellu ginnaaw ba ne meng mu ne Ibra Fall boo gisee mën a ceenn jiitu ma boo demee ne borom ndar maa ngi ñëw bo demee ne borom dar ma ñëw nee ba ñëwee fa borom dar señ tuba nee ba fa borom dar bama ma fa borom dar ne sëriñ bi rek borom dar ne sëriñ bi rek la soxla ne ba yégee fekk borom dar ndara kangam yo tok ak seeni togo nee na tuba Tuubaa ne nuyu ma kenn damaa jublu xibla damaa jublu xibla rek la sama dar ne allahu akbar julli julli ñaar rakka dal dal ne leen gees ne ana kuma wo ci yeen ñu ko borom dar sëriñ mi ne ko lo may doyee mu ne ko dañoo wax ne yaa ngi woote mbooloo mu bëree ngi lay wuy si mbooloo mu bëree ngi lay wuy si ñu ngi lay jox alal ju bari yaa ngi jënd ay ngànnaay nee ñu da ngaa bëgg a fetal jihaar sëriñ bi ne ko ana ku la ko wax mu ne ñu ko wax bari na sëriñ bi ne ko lu ñuy bari bari dañuy nar dañuy nar daa ni ko xasbiyallahu sëñ tubaa ne ko xasbiyallahu wa rasuluhu sëñ tubaa nee na ba ma waxee xasbiyallahu wa rasuluhu la ñuy bari bari bari gisatuma kenn ci bureau borom gisatuma kenn ci bureau borom Ndar ba nee na Cheikh Ibrahima Fall ko Mbàkke bo gisé ma ëppalé won sama jëm yi jëm dooma adama dama bëggoon dama bëggoon naan geej gi na da na nag iblis dem ba ca digg geej gi ne yëdu leen ma sëriñ bi fii loolu moo waral yoonu géej gi maanaam làmbar na maa yomba il di buriki wiir wiir daan ne Abdou Karim ma may sàll ba ma ak iblis ak njaboot ga ñafa diw waxambaane jël nañu yataki jaasi fa diw jigéen jël nañu kuur fa diw màggat jël nañu ndokk ñu ànd ak iblis wët si ma waaye oo ma soxla ci njaboot ga ma wuti iblis ba dajeeg moom ne ko carfat song sonk ma yëkkati ko sëñ Tuubaa na ma yëkkati iblis moo yee fa ne ma xob ma tay ko fi suuf toog ci dënd ba njaboot ga njaboot ga daal di tasa daal di tasaaroo daane Abdou Karim xam nga nu ma ko daanee xam nga nu ma ko daanee mu ne sëñ mu ne ko sëñ Abdou xam nga xam nga nu ma ko daanee iblis mu ne ko déedéet mu ne ko waxtu woo dajeeg iblis sa xol bi lu toll ne misxaale saratin ci lu dul ragal yàlla rax ci bu la jàppee yaay gën a fa xob waaye sa xol bu fekkee dara raxu ci lépp yàlla la boo ko boo jàppee iblis mooy gën a woyof xob ne sëñ Tuubaa ne ko nag paan ma iblis daa doo ko fanaan ma wóotu ko fa wàcc moomu daan wàcc wàcc moomu la wàcc woon ma di ko dundee ana lan mooy am na ana lan mooy paan ma ba ko yàlla ne sujootal ci aadama mu lànk ndégalul yàlla te dootu ko dellu mukk man ma sax ci ndégalul sunu borom dootuma ci jóg mukk lan mooy wàccu ma iblis jaamu yàlla ga mu bàyyi te dootu ko def mukk ma sax ci ma sax ci jaamu yàlla dootuma ko bàyyi mukk ñu tàgg sëñ Tuubaa na ñu tàggoob yóbbal nee na sëñ Tuubaa nee na mujj bu ma ne onse bi lee saabaram ne ma bàyyil jaam bàyyil jaam bu bàyyil jaam bu jootootu leen dara ne may jaam sëñ Tuubaa na may jaamu yàlla ma jaamu yàlla bàgg ci benn pays ci pays suñu borom yi ma fëgg bunt bi ñu ci biir ne ma man bil baa bi ma ne Abdoulaye ñu ne ma maaturi du mën a doxoolu ñuy waaju ubbi ma ne sëmm ci seen biir ña fa di wàllu xarab ne ma man xaasa ña fa nekk wàllu wolof ne kii kana ña fa diw làkkat ne ma ku dung wani nee na sunu borom tontu de nee na xaasaa xalxullaahi gaa yu baax yooyu tàmbali ma yaatal def na foofa laay ne sunu borom ne ma cas yéege ma defal ma saapee yu bopp boo xam ne balaa daraa ñëwati ca gaa yu baax yooyee jaar fi man ma di leen xamal seen lépp te xamalatuñ ma dara sunu borom defal sëñ Tuubaa pay boo xam ne pay bu tiim pay yëpp nga xam ne balaa daraa ñëwati jóge sunu borom sëñ Tuubaa lay jaar sëñ Tuubaa nee na may xamal yu baax yi lépp te ñoom mënuñu maa xamal dara loolu euh, sëñ Tuubaa moo ko nettali sëñ Abdou Karim waaye na ko sax ne sëriñ bi bu daa bëgg a waxtaan ak ñoom sëñ tu sëñ Tuubaa bu daa waxtaan bëgg a waxtaan ak ñoom maa ngi day wax naan isaa baratil isaa barasatil layla saalatil xaraailu kullaha li ma leen fekk ngeen di ko wax baax na lool waaye li muy baax baax li ma leen di bëgg a wax ko gën daa daa ne bu wax waxtaan ak ñoom da leen wax ne intaxal mura intaxal muran ba tey ne ci nett li yim daan jële ci sëriñ Tuubaa ba tey ne jumaa ji ba ko suñu borom di santaane maa ngi toog nee keroog Cheikh Moussa al Karim fekk nako ak len ci mangi serigne sëriñ ne dama leen a dama leen a bëgg a digal loo xam ne mosuma leen koo digal te dootuma len ko digal juróom-ñaar yi def naa ci lo xamne xel mu nako koo muy la ilaha illallah ismullah muhammadur rasulullah alquran kitabullahi al islaamu diinullahi ahlu badri jundullahi al anbiya wal mursaluna hisbullahi al xulamaa wal awliya abralullahi mu laal na xanaa juróom-ñaar wéy na xanaa juróom-ñaar wéy na mu des benn daan ne alkaxbatu alkaxbatu baytullahi sëñ Tuubaa na daal leen kooku maag yéen noo koy ànd su ngeen ko liggéeyul junne yi liggéeyuñu ko balaa sunu borom taxawal dend bi dana ko wàcc ku koy tee taxaw des na ko làq ki ko koy taxaw des na ko làq des na ci des na ci takkal waaye ndomba des na ci takkil waaye ba jamono ji ngeen koy liggéey dana fekk dana fekk ma dugg wa am lu dox sama diggéey yéen ma di leen gis du ngeen ma gis saxaar gi dina jógee njaareem ba yegg si Touba seen ndimbal lay doon ci liggéey bi ba ba àddinay tukki sëñ Tuubaa ne leen ba ba àddinay tukki kenn du ko taxañaaleeg dend bi nii lañ koy sampe àjjana dërëm bu ci waay def dërëm boobee dana jàpp sa loxo ba dugal la sa kër gu àjjana sëriñ bi daal ne yoo taborta ja sëriñ bi ne yoo taborta ja taborta ja taborta def kay xaalis la daal di ne daal di ci dindi ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett jox joxe daal ne def leen na man sëriñ na man ku kenn ku nekk def ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett ca jataay boobee ndax sëriñ bi jumaa ji da koo ñoroon def na ci ay jataay yu bëreeg mag ñi keroog si Abdou Karim ne mbubum mbubum mbubum la jaay nee na mbubum cawalinam la cawalinam la jaay joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett daane sëriñ bi wax ne ñi fi teew na ku ne joxe juróom-ñaari dërëm tëjee ko këri sawaraam ñi fi teew ku ne joxe jaay juróom-ñaari dërëm tëjee ko këri sawaraam yéen ñi fekkee jataayam daal di ne góorgóorlu leen loolu tamit bokk na ci li mu daan nettali moom sëriñ bi Karim ba tey nee bis da leen a woo ne leen kaay leen ma wax leen barkeb topp ndigal sëriñ Tuubaa leen ko wax barkeb topp ndigal ni mu amee solo nee na ba may ndaw ndaw yi siyaa saxdu ab bi dañoo ñëw paataar ci maam Mor Anta ñu ne ko sa doom ji fekk boobu sëñ bi lañ jublu wax ñu ne ko sa doom ji soo ko joxoon ñu yóbbaale ko ci sax du abiw penk ak sowu daañu ko dégg nee na sëñ Tuubaa na saa xel saa ne ci suñu jógee ma topp leen maam moor yëg ko sëñ Maam Mor Anta ko ci baatin ba gan ne jógee moo moo ko moo moo ko ne ko moo sëriñ bi ne ko li na ci sa xel xam naa ko waaye li nga bëgg yow li nga bëgg na di ko am na waaye lu yàgg-yàgg bul dem bul dem yow danga am li nga bëgg te doo te doo te doo doon te doo doon jaamum naar nee na bis Cheikh Sahdou Abiy bokk na ci yi mu daan ne nee na bis Cheikh Sahdou Abiy wut fanweeri gileem sëf ko ba mu diis ba mu diis ak ma jox ko ay ndaw ñu yóot ko sëriñ bi mu ne leen bu ngeen demee ne leen ko benn martaba képp moom sa Sahdou Abiy mooy wax de ne benn martaba képp moo dox saa digg ak saa borom topp naa ko topp. topp naa topp saa borom ne yaa saa borom ne yow Serigne Touba yaa ma ci mën a àggale benn màtt bi képp moo dox saa digg saa borom te topp naa ko topp mu ne yow Serigne Touba sunu borom nee na yow rek yaa ma ci mën a àggale kon Cheikh Sawda bi Serigne Touba ñoo ñu bëggoon a topp ànd ak dem Cheikh Sawda bi daa mujj ci jamono njaa dem Cheikh Sawda bi ñëw andi addee fanweeri gileem di ko jox Serigne Touba ngir Serigne Touba ko ngir Serigne Touba àggale ko sunu sunu borom kon loolu mu barkeb toog topp ndigal la nee na ba bi dane ko bis ci sëñ Abdou Karim nettali ba tey ba sëriñ bi ne ko bis Abdou Karim sëñ Tuubaa ne ko damaa jaay gura sunu borom <clears throat> ne ma jaay nga jaay gura nangul naa la ko lii firnde ji suba gura la ñu leen njëkk jox addiya doom ya day tollook li mu ayatul suuratul mulk nee na ci suba Cheikh Serigne Sarr Cheikh Serigne Sarr doomi Cheikh Ibrahima Sarr jënd gura andil ko waaye moom it def ko bëggoon gura jël ci benn def ci poosam jël jël ci benn doom def ci ci jibaam ba mu ñëwee jox ko addiya ji sëriñ bi woolu Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ne ko jàngal ma sóoratul mulki nee na muy jàng jàng sóoratul mulki ne ne ko saabala xamal ne ma ne doom yi moog sóoratul mulki ñoo tolloo bi mu woowee Seex moom li mun jaban daga na ne ko saar laaye boo jàng jëlal benn doom teg ndax sa waxi saabaram du dañ ndax saabaram xamal ne ma ne doomi guddo yi ñoog sóor ñoog saar sóoratu ñoog laaye sóoratu mulki ñoo tolloo Seex moom li mun jób daga na def aaye bu mu jàng jël benn guddo teg ne aaye mu jàng benn jël benn guddo teg ne ba guddo gi des benn doom laay des benn doom fekk bàyyi sëriñ moo ci jëloon benn doom def ko ci poosam mu ne ko maam sëriñ ne ko maa ci jëloon benn doom mu ne ko def ko ci mu daal ko ci def saar yu mat ay ay mat sëñ Tuubaa ne ko demal ci jaba jaba jaayal ma ko jënd ci kafe ak suukar nee na ba mu demee ci jaba jaay ko jënd ci café ak suukar kenn nee na keroog sëriñ bi café googu ak suukar sëriñ bi moo ko tàngalal ci loxoom boppam xelli ko ne ndaxam moos nee na ci benn kaas ne ndaxam moos kaas bii de ku ma ci jox lu ma ci jublu saa borom fekk ma ci nee ndax ndaxam moos kaas bi ma xel lu ma ci jublu saa borom fekk ma ci ba tey bokk na ci nett lim daan ba tey nee sëriñ bi mos na ko woo ne ko kaay ma xamula topp njortu ak rafet njortu topp njortu ak rafet njortu rafet njortu mooy bu ñu nee julli nga julli bu ñu nee woor nga woor bu ñu nee natt nga natt asaka boo ma boo ma nee boo ma nee dem màkkatul mukarrama ngaa ji màkk gannaaw boo defee baati sedd yi ba noppi luñ ne la baax na nga def ko luñ ne la bon na nga bàyyi ko tey rafet njort ci ne danga nga dem àjjana daa ne sëñ Tuubaa ne ko loolu mooy dafa njot mu ne ko nag sëñ Tuubaa ne ko lan mooy topp njot topp njot li ma yàlla digal mooy duma ci def dara lim ma tere du ci bàyyi dara te suma dee dem àjjana daa ne ko loolu mooy sëñ Tuubaa ne ko loolu mooy topp njot ba bokk na ci nett lii ba ne sëriñ bi mas na ko wax ne ko ne sëñ Abdou Karim samp naa ko li ci des suuti la waaye daa fees dell ak i nax-nax sëriñ bi ne ko lii ma ci séen daa ne ko sàllabul imaani xablal mawti wata sixul fu jare ila neeri sëriñ bi ne ko dama cee gis ñoo xam ne fooguma leen ci woon loolu sëñ Tuubaa ko wax ba tey ne am na bis ci kër gu mag mu ne ko kooku mu ne ko mën a Abdou Karim mu ne ko sëñ bi ne ko yegsil nee na ànd ak moom ci biir kër gu mag gi kees gu ñu dugg ba mu jeex ñu jàll ci geneen kees ba ci yàgg kees goo xam ne néeg bu rëy fa ne moo fa nekk ne bi ñu duggee ci biir ay téere ay téere bi ñu duggee ci biir néeg ba ay téere la ñu ko réemalee ba mu tolloog taxawaayu nit néeg boo xam ne ay téere la ñu ko réemalee sëñ Abdou Karim ay téere la ko réemalee ba mu tolloog taxawaayu nit sëñ nee na sëñ ne ko lii lan la ne sëñ sëñ Abdou Karim ne ko Mbàkke ay téere la ma nuru mu ne ko waaw kay ne ko lépp ci géej gi laa ko defee ne ko ndax gis nga téere bu ñuy wax wax fulku fulkul masxoonu ah mu ne ko déedéet waaw ah, sëñ Tuubaa ne ko ndax gis nga téere bu ñuy wax fulkul masxoonu sëñ Abdou Karim ne ko déedéet waaye dinaa gis bayit yu ca yu ca bawoo waaye téere bu ñu moom gisaguma ko sëriñ bi ne ko li fi tàmbalee ba saa di taxaw li fi xew def naa ko ca def naa ko ci téere ba sëñ Tuubaa ne ko bokk na ci lenn ci njariñal téere ba canal na leen seen jigéen ñi xóorul xëy nu ba yéen lañ ba yéen lañ fa nekkal sëñ Tuubaa wax ko loolu bokk na ci lenn ci njëriñal téere ba ca na leen seen jigéen a ko doxee ni béy lañ fa nekkal nee na mu daal ne ko fii mu ne sax ña koy mool sëñ Tuubaa ne fii mu ne sax ña sëñ Tuubaa ne sëñ Abdou Karim fii mu ne koy mool maa abdi ne ko fu ñu koy moole Makka wala Madinatul Mara wala Tunis wala Maghrib ne sëñ Tuubaa ne ma déedéet ña koy moole ca xaras ak kursi ne ma am ma am aal daal daanu nee na bi mu daanu nag bi sama sago dellu see sëriñ bi ne ma nekk ci ñooñu nga bokk moo tax ngeen nekk ci ñooñu ba nga bokk motax ken du len wax dara nag seigne mi ne ko ne moo tax du len wax dara neena xana xanaa xamu ne seigne sëñ Abdou Karim seigne Tuubaa ne ko xana xamu sunu borom xamal na ma ko xamne ya ko gën waye duma ko wax ko lol bok na ci nettali batay ne seigne bi wax nañu ne sunu borom du ngeen won ay jaam yo xamne da ngeen doon jaay mu jënd len do leen mom du ngeen won ay surga yo xamne da leen ab do doo yilif da ne ko min al minal ila al wujudi da leen jele ci ñak amal len ngeen am soxla mu fajal leen ko kon war ngeen a rafet njort ci moom bu ngeen rafetee njort ci moom ci ngeen di def li mu leen digal mu defal leen li ngeen bëgg ngeen bàyyi li mu leen tere mu musal leen ci li ngeen ragal waaye danaa am la ma bëgg te du ma def la ñu ma digal danaa mucc ci lañu ci la ma ragal te du bàyyi la ñu ma tere loolu de yàlla mën na ko sëñ Tuubaa ne ko loolu de yàlla mën na ko waaye du ko def ba tey bokk na ci nettali ba tey sëriñ Tuubaa wax na ko ne ko almar uha huwa ma amra bihi وما نهي عنه وراءه وما أعبه وأهب عنه يمينه وما كره وكره عنه شماله ومن أراد الجلب ما يهوي في خير امتثال أوامره ولا ينجليه أبدا ومن أراد ومن أراد الدفع ما yaxaaf bi xarit tinaa bi nax yi falaa yan defi abadan sëriñ bi ne ko kem si li mu bëgg liñ ko digal mi ngi ci kanamam liñ ko tere mi ngi ci ginnaawam li mu bëgg tañ bëggal ko ko mi ngi ci ndeyjooram li mu bañ tañ bañal ko mi ngi ci sàmmen jàmmañam daane ku bëgg ku bëgg a ñoddi li nga xam ne moom nga bëgg ci lu dul ci lu dul ndigal yi ndigal yi daane ko du dikk abadan ku bëgg a jaañ li nga xam ne moom nga ragal ci lu dul bàyyi tere daane ko du dem aba du dem abadan loolu tamit bokk na ci nett li mu daan nett li ba day ne sunu borom boo ko ne ana nga mu ne la maa ngi lii anaga ji li mu la digal nga def ko lii maa ji li nga bëgg mu defal la ko lii anaga ji lii mu li mu la tere nga bàyyi ko lii maa nga ji li nga ragal mu musal la ci daane ko ilam takkun taraahu waxtal xamali fenn xoo yuree ko inna xoo war aaka waxtal jasaayi maanaam bu fekkee waxtu nga xamne ne yaa ngi ci loolu bu fekke neko yaa ngi jëf loolu fekke neko di gis sunu borom tamit na leer na sunu borom mi ngi fukk leen te yow mi ngi jakkalo yow te lépp lo jëf dana la dana la ko fay loolu bokku na ci leet net lim mu naan def ba ne seigne touba neena na leen mo ne saxala bi ma naafi xaalaat bay na xoo bay na naafi ne saxala bi nafi jasaba ilayhi jumlatan nafi da ne ko ku soxla wo njariñ yi walif sunu borom mi borom njariñ yi dana dox ci digg ak njariñ yi ku soxla wo aji njariñ ji nak dana dana ñoddi mbooleem njariñ yi jëme ko ci yow ba tey bokk na ci li mu ko daan nettali ba tey sëriñ bi nee na ko nit ñi sëñ sëñ bi nee na sëñ Abdou Karim nit ñi ñetti xaaj ñetti xaaj lañu ñii ay tóor tóor lañu ay tóor tóor ñii ay ndobil lañu ñii ay naat lañu daan ne tóor tóor yi tóor tóor yi ñooy al mu'minuuna al muslimuuna al muhsinuuna al mutalaasimuuna al waajibaati wal mundabaati wal mubaahaati nee na bu ñu yegsee sunu borom da leen di wax udxulul janna laa xafun alayhim wala hum yaxsunoona tàbbi leen àjjana du ngeen gis lu ragal du ngeen gis lu ngeen daan na ndóobi nii nag ñooy al kaafiruuna al faasixuuna al musrikuuna al mutalaasimuuna al xaraamaati wal mukruhaati wa zumaati nee na bu ñu yegsee sunu borom di leen di wax udd xuloo naara mahad ma mahad daaxili na ñi nga xam ne dañoo weddi doon ay doon way bokkaale taq taqoog yu xaraam yi ak yu ñu sib yi ak yu lënt yi nee na sunu bu ñu agsee sunu borom di leen di wax naan tab leen sawra ànd ak way tabbi ya daan na nag naat yi mooy ñi nga xam ne naat dafa am dunq weex ak ñuul daan na naat yi mooy ñi nga xam ne weesaa la xool la si ne am na xaalu am na weesaa xala bi ilaa siyaati nihim دارنا خالو إنا معكم دارنا مصاب سب سبينا بين سالك لا إله إلا الله ولا إله إلا الله كوك سنتوارد إنه كوك سنو برام نيانا بلو بلو باهم أبي مدام الجنة بلو بنام أبي مدام سفرة بني تولو بلو باهم بلو بنام بني تولو كيبنك نيانا بامي كوكوتينول سنتوارد إنه بامي كوكوتينول مدام الجنة بامي كوكوتينول سفرة جلوالم الجنة جلوالم بعد بكون كلام دارنا تبعد سنين نيانا كو دما سنين بنيانا سنين بكريم دما لجيل سابرام بام جابو لجيبيل رد فايمه ma xam ne ku sóobu manding yan bu dis gënul ci fi yow mayël bu sëñ Tuubaa nee na mayël bu mbooleem wërsëgu yóbbu nit sawara wadd li tàmbalee ci borom dara ba ci alkaati bokk seen àdduna naat li ci des li ci des ma bokk ak waa lislaam sëñ Tuubaa daal di koy wax sëñ Abdou Karim ne ko wax ne ko loo fi gis waaye di ko wërsëgoo ndax sama loxo su tuut si moo ko moo ko liggéey sëñ Tuubaa ne ko loo fi gis waaye di ko wërsëgoo sama loxo su si moo ko liggéey nee na bis mi sëñ Tuubaa wax ne ay dara ñetti dara sëñ Tuubaa dara dara dara ba muy yet dara dara dara ba muy yetti dara daal ne mbaa yéen déglu Sëñ Tuubaa ne mbaa déglu ñu ne ko yow yow rek la ñuy déglu Mbàkke mu ne jege si leen te doo loo déglu bu baax ku xam ci yàlla mi dara doo dara ci lim digle doo doo doo jëfe dara ci li muy tere te lépp luy dara lu nekk yàlla ko tax di dara ndax moo ko dara moo ko daraal moo ko dara jaal lu yàlla daraal dara jaal ko nag ki ki taxawaat ki nga taxawaat ci kanamam kon nga xam lu yàlla dara lu yàlla daraal dara jaal ko di ko di ko taxawaat ci kanam di nga taxawaat ci kanam kon ku xam ci yàlla dara doo dara ci lim digle doo jëfee dara ci lim tere mbaa daal leen mbaa déngoon ko mbaa déngoon ko bu baax mbaa déngeen ngeen ko bu baax mbaa dégg ngeen ko bu baax nee na ba mu ba mu ba mu ba mu yett yoon loolu tamit bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi daana ko wax mu mu murid yi léegi nag ñu dikkaat ci euh, dugg ci wàllu relation ci wàllu relation relation relation yi bamba yëpp rek waaye dañ ci wax ñaan rek ama ak ci doom sëñ Tuubaa yi amoon na relation ak sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëñ na relation ak amoon na ak Cheikh Moustapha Al Karim ak ak sëriñ Fallu Mbakke ñoo ñëpp am na kenn ku ci nekk am na xasida mu def ci yow am na relation ak Cheikh Mamadou Basir tamit Cheikh Mamadou Basir sax euh, mujjug sëriñ bi sëñ Sëñ Tuubaa da ko joxoon Cheikh Mamadou Basir ne ko Abdou jaxasoo bari na lu jaxasoo bari mbëtt mbëtt mbëtt mbëtt bari ca bari daa ko boo ma gisatul Basiru laa la booleel kon loolu loolu moo ñu bàyyi ci Daaru Minam déggalu Sëriñ Tuubaa nga xam ne Sëriñ Tuubaa bi muy jéblu Sëriñ Abdou Karim bi muy jéblu ci Sëriñ Basiru ginnaaw sëriñ bi <clears throat> daf ko boole xasid ak mm, jaayante bokk na ci bayit yi bayit yi bëgg a wax bokk na ci surtout surtout na say xii وما لاختاره جعل في القلب أزهى وأعلى سربة وسلا دانك بايعتك اليوم بيها لا إخال له خدم مريدك هذا وحبل الحملة خص مني الحد توكيدا يجدد ما بيني وبين خديم المصطفى كملا loolu xasida gu xasida gu gudd la kon muy wax sëriñ Basiru nag maa ngi siyaare sama doomi sëriñ te siyaare bi nag sama doomi sëriñ maa ngi siyaare sama doomi sëriñ mi nga xam ne li ma tànnal li ma sëriñ Tuubaa tànnal mi ngi mel ne lem asa wa ahla lem goo xam ne moom lay ci sa mi ngi neex ci sama xol ne lem gu moo dàq gën a neex ci sama lem gu may naan daan ne jaayante naag bàyyeextu koy la moom ba jaayante naag Cheikh Mamadou Bass jaayante goo xam ne jaayante goo xam ne ginnaaw ba xàcc du ci am mukk maa koy taalal sama ñaari loxo tamit di ñaan mu nangul ma daan ne nag maa ngi fedd li ci moom Cheikh Mamadou Bassirou kóllëre kóllëre gi nga xam ne seexoon naa bay sama digganteeg sëriñ diggante sama digganteeg sëriñ Tuubaa kóllëre gi nga xam ne seexoon naa ko waajur mu baax wa maa koy fetli ci moom Cheikh Mahamadul <clears throat> Basiru kon loo amoon naa moom yu yaa relation yu yaatoo yaatoo yoo xam ne bu ñu ko doon waxtaan tamit doxaj ci émission bi noonu la ko amee woon ak doomi sëriñ Tuubaa yëpp tamit doomi sëriñ Tuubaa yëpp noonu la ko amee noonu la ko amee woon ak Cheikh Massamba tamit daa daa taxawoon ak sëriñ Massamba lool ndax lañ bokkoon nekk sëriñ Tuubaa ba bi massam ba joge sax defal nako marché defal nako marché bo xamne euh amna bay duñ ci mëna wax euh moy euh bi massam ba joge sëñ bi defal nako ay sëñ bi kërëm defal nako ay beet dinañ ci juk ay beet rek hal yanfahul maru iksaru sikayati fima ma xadallaahu min fawqi samawati amil buka yanfahul baki isaa waradat xukmun min allaahi qahaarul bariyati ina nujuma kasa aflaakuha labakat ala la si xat hawa ahlal maqaamaati malaikul malaikullahi fi afaaxihim la bakaw ala si xat hawa kullal karaamaati xat bakati samsu kal asjaari ma xamarin mus mus mus mus xat afala samsu diyaanaati am na ay bayit yoo xam ne sëñ Abdou Karim moo ko defal sëñ ndax dina jariñ kem si bari njàmbat ginnaaw bi sunu borom dogal bi ginnaaw bi dogal sunu borom rotee jóge ci kaw asamaan mooy dogal suñu borom bi rot ci sëñ Masamba mooy sëñ Mbàkke sëñ Masamba làqoo daane ndax jooy dina jariñ aji jooji ginnaaw bis suñu dogalu suñu borom rotee suñu boroom mi nga xam ne mooy xaxaarul ah, bariyaati moo mooy noonu ñëpp moo bind ñëpp daan na bi sëñ Masamba ne rewee nag mbooleem biddiw yi ak ak boo boo xoolee biddiw sax da ko ci xam moo xoolee weer weeg biddiw yi ak asamaan si nee na da gis nim nim meloon na lu fulu siñ ma Massamba mi nga xam ne làq na bépp ma xamee suñu borom daane malaaka yi suñu borom yi sax dañ doon jooy sëñ Massamba sëñ Massamba malaaka yi dañ doon jooy sëñ Massamba daane sëñ Massamba mi nga xam ne làq na bépp di bépp bépp karaama nee na tamit jant bi da ko doon jooy garab yi dañ ko doon jooy weer yi dañ ko doon jooy moom sëñ Massamba lool ay bayit la yoo xam ne kon xanaa dañuy toje bu fekkee euh, temps bi jeex na rek dañuy toje ci xasida goo xam ne moom la bari na ndax la ci def bari na waaye dañuy tojoo ci xaalis goo xam ne euh, mag ñi amoon relation bari lool ñu yëpp ci lañ waaye dañuy tojoo xasida goo xam ne Sëriñ Abdou Karim ko bindoon ci jamono yu jaare moo xam ne ay ay ay bayit yu néew la moom la ñu tojee euh, waxtaan wi xasida yi laay toje waxtaan gi daana asa euh, mi ngi tolloog جروم بن بيرك خم جروم باي دان هذا ما خالو سي عبد الكريم لي واحد سي عبد الكريم ترى لا مين كده فون جارم تمت دان أتاكم مريد الصيح لله إسائرا يروم لخا الخ يروم لخا الخير لله إسائلا وما لي سوى صيح الخدم وسيلة أنا وأنا خسرت نحوك مائلة حمدت إلى على عرش حمدا يسدني فيودا تنير القلب ما رمتنا إلى تمسكت بشيخ البصير عالم من به أتجد دارين كامل به أتجد دارين كونية كاملة muy bayit yoo xam ne si sëñ Abdou Karim moo ko defoon daan ne dikk na leen muritub sëriñ bi di siyaare siyaar gi nag mu ci sàkku dajeeg mu ci sàkku dajeeg aajoy faju aajoy sun aajoy faju daa xam leen nag daa ne leen bi daa bi leen siyaare ba noppi nag maa ngi leen xamal ne oma benn sëriñ oma benn wasila bu dul seexul xadim wama li siwa seexul xadim wasilatun fii ci fii ci àddina nag ak alaaxira gu ñu jëm moo tax sama mujj naa jàng jëm ci sëriñ Tuubaa sama lépp mujj naa ko jëmale sëriñ Tuubaa ñetteelu bay nag ma daa ne maa ngi sant sunu borom maa ngi sant sunu borom sant goo xam ne dana ma dolli ay xéewal te dina leeral sama xol dina ma dina ma may sama càkkutéef tamit bay du mujj tamit des fois di fetli ba tey rek diggante ak sëñ Basiru mooy mooy tamasaktu bi seexil Basiri daan na rek ginnaaw loolu nag ginnaaw sëriñ bi nag maa ngi leen di xamal ne ngooy naa ci Seex Mahmadul Basir mi nga xam ne mooy aji lewet di borom xam-xam di yaakaar ci moom nag tex ñaari kër yi àddina ak alaaxira ak nekk gu mat waaw loolu tamit ay béy la yoo xam ne moo ko tënkoon ci njaareem di wane position kon bu fekkee temps bi jeex na des na lu bari ak jagle yi tamit jagle yaa ngi jagle Sëriñ du Karim bi mën naa cee wax ñaar rek boo ko defee ñu toj émission bi eh, daana eh, Sëriñ Abdou Karim waxoon na tamit seex du ay mbooloo seex du ay mbooloo seex du ay mbooloo yu lay topp rek daan ne ba la daal ne seex da ngay jubóog sunu borom ba soo liggéey boo ne ko defal mu def boo ne ko bàyyil mu daay bàyyi nee na loolu mooy màttamu seex nee na bokk na ci li mujj a wax moom sëñ bi bokk na ci li mu mujj a wax wujj sunu borom ndekale topp sëriñ Tuubaa lépp doy moom ràmm loolu la sëñ bi di mujj a wax mujj sunu borom bokk na ci tamit nee na ku mu taseel ci kaw yoon mo ku ma taseel ci kaw yoon xamuma ko xawma mu yëkkati mu jox ma ngir yàlla ak sëriñ bi nee na kookee boo liggéey rus naa dem àjjana muy dem muy dem safara nee na bokk na ci ci ay jagleem daan na Cheikh Issa Diène taalibe yi junneem moo ëpp taalibe yi nitam te bu ëllëgee dana ram ñooñam ñëpp booyal lu toll ne juróom-ñaari àddina nee na Cheikh Issa Diène dana ram ñu ko yaakaar ñëpp booyal lu toll ne juróom-ñaari àddina waaye si Abdou Karim ne bu ma ne woon kaañu weccee ma bañ bu ma ne woon kaañu weccee ma bañ ah. kon loolu nee bokk na ci Sëñ Tuubaa Sëñ Abdou Karim dana pest ba amoon njariñ bakkan yu bari rot ca nee na àgg na ci dongo yi am na ñu bàyyi seen laxasaay ngir metti gi ci dongo yi nee na si Abdou nee ma des sa maag sëriñ siiraloo ak diw ak diw nee nee bi pes si ma jeexee sëriñ Tuubaa wooñu nee ñu yéen ñi fi de yéen ñi fi desoon di ma jàppale ci ñi tawat baa léegi fu ma dëkk ci na yéene dëkk wër ma daan ne ku ko fekkewul nag ku fekkewul lool nag lool lool loolu na la kon lu bëree bëri la kon nag foofu rek lañuy ñuy yemale euh, waxtaan wi bu fekkee temps bi jeex na di sant bu baax nag di sant waa kii bi waa bi waaw di sant waa site Abes Kolo waaw di sant si Mamadou Touré mi euh, di ne kër sëñ Aliou ci liste bi mi ngi ci ñi sëñ bi amoon mbokk ak mi ngi ci biir mais sëñ Aliou Touré moom ak sëñ Abdou Karim du ñu woon lañu woon euh, maam Aliou Touré tamit tudde woon ñaari doom. amoon na ñaari Abdou Karim dañoo jaxase woon lool sax di benn loolu nag njaboot yaa ngi koy wéyal ba tey ñu koy mbokk googu ak kódare googu ñu ngi koy sàmm di ko wéyal ba tey kon nag wax daa xaw a jafe lu des ci wax lu des ci waxtaan wi ñu ngi koy jéglu baax waaye dañoo amoon yéene leeral rek waaye li wér li am daal mooy lii luñ ci wax rek lu wér la ndax luñ ci doon wax dañ koy déglu dañ ko doon déglu seeni waajur di ko bind seen gémmiñ ak sama xalima di may bind waaw noonu noonu li ma ci li ma ci wax lépp noonu laa ko doon déggee si sama waajur ñoom tamit li ñu ci wax lépp noonu lañu ko doon déggee si sëñ Karim ndax sëñ bi sëñ Abdou Karim mën na yaral boppam kon nag lii lañ ci doon wax ci tënk rek di jégalu yëpp nag ci li des ci waxtaan wi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu